Abdourahmane Diouf a nga xam ni itam mooy université Cheikh Anta Dakar aussi euh, wotena aussi benu li nga xam ne recensement ni dal di wara a recenser exactement ñi nga xam ni itam ni euh, ñoom ñoo war a ñoom ñoo fa habilité pour jàngale fa way tam ñi ñew heure di wacc heure c'est important ce qui nous pousse même à aller dans ces administrations dal di wax exactement itam ci Ousmane Sonko changement yi nga xam ne bëgg ko ni changement de paradigme changement de fonctionnement exactement alors euh, Modou la question qui se pose mooy horaire yi ñu ne huit heures la 8 euh, heures euh, le ñep xey ci exactement et tant d'autres et d'autres alors ce changement bi nga peut-être bëgg nañ ko changer il y li nga xamné administration yi ba nga euh, parce qu'à un moment donné aussi a ay administration dem nañ sax perdre exactement seen raisons raison d'être askan wi gisuñ seen bopp da ngay ñëw bëgg këyit wala kon bëgg li nga xam ne li dara mais c'est traverser justement euh, le désert euh, mu nekkoon loo xam ni itam sénégalais doon nañ ko administration yi est-ce que concrètement le sénégalais est préparé par rapport à Ousmane Sonko ou nga xam ni itam bëgg na ko daal indi ne si itam ñu daal di changer un peu quoi qu'on puisse sur les fonctionnements de de de de de de nos administrations. Euh, yaakaar naa ni ci côté boobu fallu li c'est très simple. Hmm. parce que euh, boo xoolee dafa Sénégal dafa nekk euh, réew moo xam ne liggéey fi d'abord dafa dafa jafe. donc boo nekkee ci réew moo xam ne liggéey fi dafa jafe donc on a un chômage partout le chômage de la jeunesse partout. donc yaakaar naa bu ñu la tekkee ci ci dans la fonction publique da nga war respecter sa heure de de travail. Hmm. di ñëw heure di wàcce di wàcce heure mais di moytu absence yi ak retard yi. loolu dana dina dina dina dina bokk li nga xamante ci li nga xamante maanaam askan wi bu ñu bëggee quel que soit le papier yu gën ko gaaw am puis hmm. mais de da nga doon ñëw auparavant ci benn administration nga wut benn papier rek il faut il te faut là-bas attendre douze heures de temps donc ce qui est ce qui anormal da ngay ñëw foofu huit nga tax nga toog foofu ba minuit ba ba midi ou bien quinze heures comme ça donc ce qui ce qui n'est pas du tout normal bu yaakaaraa bu ñu la dugalee ci secteur boobu noonu da nga war er, a ñëw heure liggéey li nga sa nekk sa place à 8 heures ah, donc bu bu 18 heures jotee nga daal di wàcc ñibbi. Hmm. loolu dina dina maanaam eh, gën a yombal ñi nga xamante ñooy wut papier eh, ñu wut ko. Hmm. du leen tardel fee. Hmm. parce que ki nga xamante dafa bàyyi eh, liggéeyam ñëw taxaw foofu kooku dafa bàyyi liggéeyam donc koy tardel. Bien ngi koy tardé mais yaa ngi tardé tant tant d' autres ñi nga xamante ne soxla woon nañ quand hmm. ci ci ay ay dossiers yu mel noonu. Hmm. donc avec le le kii là comment dirais je. Euh, le pointage le pointage là. Hmm. vraiment je pense que c' est une c' est une c' est une bonne chose et ça va permettre au gouvernement quand même de d' accélérer le processus de euh, de modernisation mais quand même euh, de mettre le Sénégal dans les rails du développement donc da nga jàpp ni dans la logique des choses euh, Sonko daal euh, alors dans le sens moderniser exactement les administrations. Hmm. donc sont si bien sévère euh, benn comme ni ko gars yi jàppee ni des fois day xaw sévère. non pour hein. man gisuma ne affaire bu sévère parce que nit man dama jàpp jàpp ne lépp lu nga xam ne yow yaa ci engagé wu ba ñu jël la si parce que gënoo ko ñeneen ñi. Hmm. Ah, peut être yow da nga am chance ñu teg la fouf. donc bu ku ñu fa tegoon keneen ne ko tamit il serait obligé que mu respecté ko. Hmm. normalement de normalement da nga ko war Hmm. parce que ay nit nga fay nga fa toogal. Hmm. maanaam yow boo boo bu fekkee da nga jóg rek pour liggéey. Hmm. il faut nga respecter heure bi pour maanaam euh, bañ a tardeel ñeneen yi alors donc c'est clair exactement par rapport ak wàllu wu nu je vous rappelle que bataille tey une mission li nga xam que modi midi info euh, sur les antennes de euh, Sénégal 5 TV alors donc dañuy daal di suñu euh, par rapport toujours à actualité politique bi nag laataa ñoo qui di ñëwaat si ki nga xam que moo di Bassirou Diomaye ak ki que modi justement Ousmane Sonko bataille tey une ay décisions yi nga xam ni itam ñu alors j'aimerais ñu daal taxaw un peu par rapport à Guy Marius Sagna Nak, nag hmm, dafa daal bindal li n'a xam que modi 42 questions à Ousmane Sonko kuy euh, toujours fidèle à sa vocation mon itam ki n'a xam que moo kuy Marie Sagna euh, ces 42 questions mu accentué euh, de part et d'autre par rapport à li nga xam ni itam mom la non daal di xaas si mi ngi si li nga xam nekk benn que li nga position militantisme alors ki n'a xam que modi kuy nak nag mu def exactement si li nga xam que modi 42 questions écrites bokk na daal di waxtaane ponk yi nga xam ne itam gën ko di fasantiku di li nga xam que modi enseignement supérieur pêche affaires étrangères, éducation, urbanisme, forces armées, hydrauliques, euh, justice, euh, du travail, de la jeunesse, de la santé, de l'environnement, de l'intérieur, des infrastructures et des transports, de la télécommunication, des mines. Euh, alors, donc, la justement le gouvernement d'Ousmane Sonko pour me répondre euh, par rapport à toutes ces euh, interrogations. Alors, euh, analyse que euh, par rapport à qui n'a ramené que Guy Marissagna. Il fait que surprendre justement donc plus parce que Khalat Nyon Ousmane va écrire comme nous l'avons fait ce gouvernement qui passé. il de exactement. Il gouvernement gouvernement Sonko, dès là, que exactement tous ces problèmes est-ce que nous avons tout dit koy tout dit oui bon je pense que Guy depuis commencé <coughs> donc euh, il est dans sa logique que euh, day gëstu il est un député il est député à l'Assemblée nationale li muy def moy dafa wara a gëstu lan la askan wi di nekk yan yan ci yan problème ni askan wi di jankontel pour manam mën ko tégal gouvernement bi donc mom bu démé ba ba gis ne am na euh, li nga xamante manam maanaam euh, des irrégularités qui continuent de percer jusqu'à présent donc mom daf ko wara bindat tégalat ko gouvernement bi pour manam mu mën ci xalaat hmm donc yaakaar naa ne ci logique boobu la il n'a pas changé parce que moom bi mu ñëwee dafa waxoon ne del ma wooy surga askan wi. donc yaakaar naa ne loolu buñ bi ñu ko commencé ba léegi dara aussi dañu ci. Hmm. léegi quelqu'un de constant. mais jàpp nañ tamit comme un nouveau gouvernement euh, récemment installé. Hmm. donc il faut que ñu may ko tuuti battement. pour hmm. maanaam ñu mën a organiser wu. waaw fa laa doon exactement pour ñu mën a est-ce que teelul ñu ne. parce que Abdou Karim Beye génnee attaqué leen yéen waa Pastef da ngeen ne teel na bon je pense que euh, mon mon ñëw rek changer affaire yi sa yëf yi euh, brusquement ni il faut il nous faut d'abord un certain temps ñu xolat affaire et même le ki ki qui ki ñu taxoon mu mu nekk di critiquer waat je pense c'était Ousmane Sarr Ousmane Sarr de mm. moom mujj gel donc yoy non ay ay processus yo xamantene ne mënuñ jékki-jékki ñëw ne il faut que li am li am am parce que état du du d'une façon certaine façon bo xamantene day wax né li dee am rek manam du askan wi li lañ bëgg am rek mu am. Hmm. dafay am benn procédure parce que c'est un travail de chaîne en quelque sorte. Hmm. donc ci lancé boobu noonu maa ngi koy invité à ce que mu mu mu dal tuuti vraiment parce que. mu may leen battement Guy Marie Sagna il est du gouvernement. parce que il bu ñuy wax Ousmane Sonko mënuñu mënuñu exclure Guy Marie Sagna Guy Marie Sagna c'est quelqu'un qui est qui est un peu plus euh, trop proche à Ousmane Sonko parce que ils ont de la même zone si je peux m'exprimer hmm, ici. jàppale na ko ci affaire yu bëri donc ku ku gis le 16 mars li xewoon vraiment jàpp naa ne li nga xam Guy Marius li mu apporté Ousmane Sonko bëri na trop hmm. trop trop trop donc jàpp naa ne euh, gouvernement bu bees bi lépp li nga xamante ne digg nañ ko ñoom dinañ ko def te ñu ngi ci procédure bi mais dafa am yoo xamante ne tamit ah yakarna il faut ñun ñep ñu taxirlu mais ken du fal nit tamit ba paré diko pressioner je hmm. pense que dañ ko war a ci procédure bu mu nekk. Hmm. parce que ñu affaire bi yombul. Hmm. ñun biñ biñ ko falee dañ koy fal daal di pare gunge ko ci travaux yi nga xam ne moom la bëgg a mëne ba yóbbu Sénégal. Hmm. dans ci ci beneen ci beneen. Sénégal meilleur Sénégal dans Sénégal meilleur. alors donc da nga jàpp ni Guy Marius peut-être à déçu d'une part. non c'est pas une une. il a une déception c'est ah. pas une. <laughs> C'est pas, il ne sait pas qu'il a foutu, mais euh, il est dans sa logique et il doit laisser encore le gouvernement être dans la même, dans, la, sa logique. donc je pense que moi, en tant que député li ko war def nako et Mais loolu la wara def sax da war dem. mais loolu la wara def. oui loolu la wara ah, def mais ni installé wuñu kay. ah il est temps wax wax wax leen orientation euh, ministre bu nek wax ko ay euh, orientation alors ñi tamit japp ni dafa waroon bay exactement DPG muy déclaration politique générale bu Ousmane Sonko peut-être pour mu daal koy laaj question yi yëpp. Mhm. te déclaration wonn ko def fii ak li nga xam que mu trois mois instant bi telna na euh, loolu tamit ban question lolu est-ce que du ni féewloo exactement Donc, pas d'une part et d'autre fa nga xamni ne modi moo di sa diwaanu li nga xam que passé parce que ko su nek yaa ngi fofar foofaat ñii ne guy Marius wax nga deug ni ne det guy jaral Ousmane Sonko bàyyi leen ko tuuti mu mu mu mu mu mu mu sax parce que instant bi mi ngi ay visite de euh, proximité et tant d' autres et tant d' est ce que tamit du indi euh, ben discord au sein de Pastef exactement. Euh, non loolu mënul indi ben discord ci bir Pastef parce que ñom ñep xamante nañ xam nañ ku si nak ngay procéder ku si hmm. ne yaangi ci sa liguey man vraiment loolu la japp c'est-à-dire que mom Guy Marius Sagna mom ci lim wara def dem. Euh, jege askan wi xam ni mm. lan mooy seen problème ñëw mm. exposé ko gouvernement bi ci fu ci dynamique boobu la nekk te dañ ko war a comprendre ñi wax ay ay féewaloo yëpp dañoo dañoo comprendre mm. mais ñoom ñëpp kenn réer réerewu ci ak sa moroom te Sénégal il faut bu ñu bu ñu bu ñu bëggee Sénégal change il faut que ñu bàyyi wax yi nga xamante ne maanaam amul benn benn benn utilité nañu luy instant bi fay euh, fal nañ Bassirou Diomaye Guy daa bokk si groupe parlementaire bu euh, Pastef na xam ni itam euh, mooy zone assemblée nationale des fois balaa moo def yéen nii pourquoi pas sax waxtaanu seek ñoom Birame Souleye Diop et tant d'autres et tant d'autres ba yéen ñeen toog di ko ŋàññ nga doon ŋàññ nag non du du nekkul nekkul ŋàññ ah. c'est-à-dire moom ci dinaa bu mu nekk moom mu ngi ci et que Ousmane ñoom li ñu war a def ñoom ñu ngi koy def de peut-être pour déclaration de politique générale bon non, hmm. moom d'ici euh, trois mois moom dina ko def instant yi ñu ngi mu ngi nekk di di ordonner à chaque ministre pour mu mu mu regrouper ak ay Et ay ñooñam. pour hmm. maanaam euh, tegal ko plan plan plan plan plan d'action. donc yaakaar naa ne loolu noonu bu fekkee ne def na ko def na rek. Hmm. je pense que du du am benn problème te ku si ne li nga war a def yow yaa ngi koy def. parce que mosul am féewaloo. alors euh, donc qu'en est-il pour ces questions exactement. Euh, Ousmane Sonko est-ce que vous avez pour le moment wala voir exactement sa déclaration de politique générale. non Ousmane Sonko du koy euh, koo xamante de chaque jour bu nit day parce que ay question la ay question la Sonko donc adressé directement gouvernement Ousmane Sonko pas Sonko sax mais gouvernement Ousmane Sonko est-ce que nous donnons le ton, tontu exactement leur déclaration. non je pense que dañuy une déclaration de politique hmm. générale parce que ñoom euh, fi ñu toll nii il faut que ñu xaar mooy plan d' action yooyu ma la wax ni sas na ko ministre bu ne mu defal ko ko.